asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may xel ak xol sant ko si mboolum xéwal yi ñu defal xéwal yooyu bokk na si jotaay bi di xel ak xol xel ak xol ndax ñaar yooyu ñooy doomu aadama doomu aadama xel la doomu aadama xol la doomu aadama xel la xelam jumtukaay la boo suñu borom moo ko jagleel doomu aadama bindul xelam yàlla moo ko may xel ngir mu koy jëriñoo ngir xàll yoon ngir jëm kanam mboolem jafe-jafe yi ne suñu kanam yëpp saafara si mi ngi suñu biiri xel doomu aadama moom xelam dafa ñaw doomu aadama xelam su ko jëfandikoo moom lu ne mën na ko see génne xool tey yi xelu doomu aadama togg yëpp yekk ko lu mel ni télévision oto téléphone euh, kër gi nga dëkk euh, lu mel ni avion lu mel ni euh, gaal lu mel ni otoraay yooyu yëpp xelu doomu aadama moo ko togg defar ko doomu aadama ñoom doomu aadama yi si xel lañu rawante léeg-léeg ki lay gën a jëfandikoo xelam léeg daf lay féete kaw réew yi sax si xel la ñuy rawante réew tubaab yi nga xam tey ñoom ñoo jiite àdduna bi ñoom jiitewuñ ko dara lu dul xel xel lañ ñu gën a fonk ëpp ñu ñu xel de waaye ñoom ñoo ñu gën a kaweel xel ñoo ñu ko gën a jox gëdd moo tax ñoom tey ñoom ñu féete ñu kaw ñun bés bu ñu tàmbalee suñu xel yi ñu leen di jëfandikoo ci anam yu gën bàyyi ay xalfu fuufa ay déeba déeb ay kalmañangaan ay xërëm ay xonjom wekk suñu xel ak suñu borom ñun dara duñu të lu ne mën nañ ko am fu ne mën nañ fa yegg doomu day moytu am xel mu lënt ak xol bu lëndëm ndax xol bu lëndëm day tax boromam dundam naqari day tax boromam bëri ay gàllankoor bëri ay euh, naka su dul noonu ndax lan xol bu bon xol bu soxor doomu aadama bu xolam bonee soo moytul moom dundam du mën a neex doomu aadama day moytu am xel mu lënt ak xol bu lëndëm am na lu ñu bëgg seetaan si wàllum xel balaa ñu dikkaat si jotaay bi di xel ak xol. delloo njukkal bira si yooyu mu ñuy euh, taataanal tey euh, Roxoy Daba Mbodj moo nekk ci réalisation bi sunu ñawkat di Papsi euh, Papsi njiit création fii ci HLM 6 moom it delloo ko njukkal tey suñu jotaay bi njëkk xel ak xol ñu ngi si ànd ak Serigne Saliou Valentin Faye Serigne Saliou Valentin fay moom moo jiitee kuréel googu di les enfants d'abord fii ci Thiès ànd si tamit ak Ablaye Fall Ablaye Fall moom technicien la si wàllum imagerie loolu dinañu ko leeral léegi mi ngi nekk fii ci hôpital Ahmed Sakhir Ndiéguène bu Thiès Ablaye Fall di la nuyu la ziar. maa ngi lay nuyu Tunkara. yow it euh, sëñ Saliou Valentin Faye la nuyu la ziar. ñu lay fay nuyoo Tunkara. les enfants d' abord euh, loolu du lu bees ñu dégg depuis kañ la les enfants d' euh, damay jëkk d' abord Tunkara di la delloo nuyoo. waaw. di la remercier ci invitation bi aussi. incha allah les enfants d' abord depuis kañ la. les enfants d' abord mën naa wax ne am na bientôt quatre ans. quatre ans mais activité bi ñuy commencé dëgg dëgg dëgg. ñu ngi ci suñu deuxième année d' activité eh, les enfants d' abord lan mooy jubluwaay bi. les enfants d' abord tur wi wuyoonu wuyoonu borom ñun ñëpp dañoo jaar ci ndaw amul benn doomu adama bu juddu te jaarul ci ndaw comme ni nga ko expliqué léegi rek xel mi ñuy yàlla jox ba ñu xalaat les enfants d' abord mooy maanaam xele xele moo jiitu ci lépp. mooy jiital xale daal. waaw mooy jiital xele teyit it xele moo jiitu ci lépp te xele mooy suba mooy ginnaaw suba mooy ëllëg. léegi yéen euh, tey jii lan lan lan moo tax nga ñëw fi lan nga bëgg leeral. li ma bëgg leeral mooy ñun dañuy bëre ci fànn yu bare bi ci ëpp solo mooy protection xele nan la ñuy waar aari xale parce que aar xele mooy defar ëllëgu Sénégal mais Tunkara boo xoolee Sénégal nu muy doxee actuellement xam nga ni li fi ne lii ñëw ëllëg buñ ko defarulee dina am gàllankoor. ci doxalinu Sénégal. donc yow li nga bëgg tey mu leer si bopp ñëpp mooy ne xale yi dañ leen war a gën a fulaal gën leen gëddal. jox leen seen place parce que seen place mooy ëllëg ñu yor dëkk bi. Euh, loolu dafa am solo euh, Ablaye Fall. Hmm. yow technicien supérieur nga si wàllum yi loolu lu mu doon. waaw loolu mooy euh, mboolem ñuy dem ci fajukaay yi. Hmm. ñu leen ñu defal rajo wala scanner wala IRM ñooñu ñoo koy def. loolu mooy imagerie rajo scanner rajo scanner PET scan yu amagul Sénégal ak yeneen technique yoo xam ne. Euh, lan amagul Sénégal. PET scan. PET scan waaw mooy lan. <laughs> beneen technique d'imagerie la boo xam ne da ngay gis carrément euh, maanaam organisme nit ki daal. maanaam mboolemu cëram yëpp. mboolemu cër yëpp mais du jaar ci rayonnement. suuf si muy jaar. ay affaire yu magnétique lay utiliser comme IRM hmm. comme le IRM. comme dafa mel ni euh, appareil yooyu ñu teg si. Euh, fu mel ni aéroport Amérique yi nga xam ne boo duggee pour ñu xool ndigam yor nga gànnaay ak yooyu depuis bi affaire attentat yi da dugg si benn euh, genre lu mel ni benn appareil noonu rek après ñu ñu gis sa yaram yëpp. bon même technique la que bu nekkee imagerie médicale. waaw sauf ko bële dañ ko utiliser pour xool leen ci yaram rek xam ndax am na un objet étranger ou pa alors que bu dee wàllu wér-gu-yaram ay feebar lay génne. Euh, pet boobu. pet bi nga wax par exemple bu jo may ñu si tuuti tey euh, bu ñu la defee noonu bu ñu la scanné ak pet scan moomu yan xeetu feebar moo mën a génn bon ça dépend ci li ngay set ça dépend ci li ngay set parce que tu vois carrément les structures anatomiques de l'individu da ngay gis muscle bi carrément sauf que bu dee scanner wala rajo euh, densité ngay gis noir gris noir ngay gis alors que fait tu vois carrément comme tu vois l'image en couleur en couleur selon option bi nga jël si tu veux que ça soit en couleur. ou en noir et blanc nangam nangam. léegi boo xoolee structure euh, yax bi wala euh, dégg nga maam euh, cartilage yeeg yooyu bu génnee da ngay mën a xam ne fii dafa am jàngoro. bu waaw après bu ñu la jàngalee l'anatomie normale. waaw tout ce qui est anormal da nga koy génne. est-ce que c'est le médecin radiologue maintenant qui de dire ce qui est pathologie ce qui ne l'est pas. est-ce que dëgg la que l'anatomie ñu ne c'est la seule science achevée mooy bi nga xam ne wér na ni tey euh, doomu aadama mbooleemu cëram yëpp répertoire nañu leen loolu dëgg la. bon loolu moom defe naa anatomiste yi ñoo ma ci gën a mën a xarañ tuuti. yow imagerie nga def tey tey euh, Ablaye Fall lan nga ñëw pour leeral. waa dama ñëw pour indi ñaari projet parce que au fait ginnaaw bi ma nekkee te technicien imagerie dem naa jàngi am ay benn master en management des organisations et création d'entreprise également management en gestion hospitalière donc am na tuuti lu ma xam ci affaire jumtukaay yi ñuy utiliser ci wàllu fajukaay am yeneen xale yi mu doon liggéeyal ci wàllu programmation ñoom tamit ñu indi beneen xam-xam bu jëm ci wàllu saytu mbirum élection segam ci lañ toll actuellement je pense que c' est le moment pour euh, application yi dem yi mu jaar yoon bon pour mu gën a jàppale mbir mi mu jaar yoon parce que pour waaw en fait euh, observe lañ ko tuddee observateur des élections Euh, application la boo xam ne ça permet de répertorier tous les bureaux de vote du Sénégal. tous les bureaux de vote les inscrits les non inscrits ceux qui sont inscrits valablement les suffrages qui sont valablement exprimés ceux qui ne sont pas exprimés maintenant puisque euh, nit ñi am na habitude. Mhm. bu élection ji am à 18h dañuy woote téléphone. wax na la bon bureau de vote bi nangam woote na mais ça c' est verbal. boo amee benn genre outil bu la mën a permettre à chaud nga mën a jël toutes les données qu'il y a def ko ci biir mu topp ko. lu am njëriñ lay doon mhm. dina mhm. dimbali télé par exemple télé bi nga xam ne bëgg na wan askan wi na par exemple au Sénégal léeg léeg lii moo fi nekk comme taux de participation nangam nangam dina ko amal njëriñ kon ñu installé ko mu jox ñu visibilité totale si élection à travers tout le territoire national et international ñëw ñu def ko si élection yi fi nañ ci waxtaan loolu kay ci yéen lay soxla lay doon rek parce que bi ñu koy defaree yaa de am na ay boy yoo xam ne ñoom la ma coaché. ñoom day soxla ñu jox la xaalis wala lan. ñaata bon juste man mënu ma ko évaluer actuellement. parce que léegi koy évaluer après nga wax ñu. y' a nga wax ñu les termes du parce que lii dafa am solo. liñ tax a jóg loolu la euh, lii dafa am solo parce que euh, évolution la daal tey ñu ngi woon euh, démb ak bërki dem ñu ngi woon ne la yaa ngi fàttali que ay 2000 yooyu si la rajo yi commencé. élection mhm. kii résultat yi bu kiiwee ñu mhm. nodd ko léegi waa Sud FM di leen delloo njukkal si loolu bay ak ñu waa Walf yëpp. bayoon si waar am sax mais li nga indi nii. Mhm. dafa nekk benn évolution. am na benn démo bu ma indi si tu veux je peux te montrer. aywa démo bi waaw bon rapidement. Euh, papi mën nga ñu xoolal euh, démo bi euh, journal bi ko ñu xool aywa. c'est juste 2 minutes 16 hein. Hmm. je peux le faire en lecture rapide. bon fii maanaam day dugal région yi choisir région bi soit département mi ngi toll ci wàllu configuration euh, bureau de vote yi nga choisir ñaata bureau de vote ñoo fa nekk bu la neexee 2 3 4 selon localité bi nga am supposons bu nekk 2 euh, bureau de vote et cetera léegi fii mi ngi toll ci wàllu euh, recherché bureau de vote. Mm-hmm. Fatick par exemple hmm, nga dem a Fatick bureau kii ñoo fa nekk communes yi ñoo fa nekk département bi la. ensuite nga dugal bulletin euh, de vote bi ak bureau de vote numéro 1 bureau de vote numéro 1 ñu ne la y' a cent cinq cent cinquante nga dugal nombre nombre de votants yi nombre de votants ñu ne la par exemple y' a cinq cent cinquante nombre de bulletins nuls dix suffrage valablement exprimé cinq cent quarante d' accord. Mmh. au mesure ngay dugal pour chaque partie politique lu mu am décompte bi day wàcc tu étais à cinq cent maintenant à cent boo dugalee parti politique yëpp hmm, nga valider. une fois que c'est validé mën nga dem naa rechercher maintenant par bureau de vote ñan ñoo fa voté woon Fatick par exemple tu sélectionnes il te donne euh, dans la commune ne la lii fa nekk comme étant les bureaux de vote qui ont été enregistrés 43 50 s'il y a des erreurs la communication mën na ko mhm. rectifier ne par exemple du woon 78 72 pour valider da nga am tamit une panoramique de l'ensemble des bureaux de vote département yi ak communes yeeg yëpp Là, tu peux rechercher par commune, tu peux rechercher par bureau, tu peux rechercher par nombre de votes, etc. etc. ah mais mais lii euh, xam nga dafa dafa am solo trop parce que comme li ma wax rek euh, ñu bëgg ko ñu bañ ko àdduna moom dafay dox te doxu àdduna fu mu toll def si bokk xarale yu bees yi nga xam ni lépp si la si la war a taab beneen projet bi nga doon wax. Euh, lan la beneen projet moom dafa dafa sukkandiku ci fànn yu bari. parce que man segam hôpital laa nekk. Mhm. mine de rien j'ai dans dans dans le domaine xam naa yenn jafe ñi nga xam ne moom damaa damay jànkonteel bokk na ci. Euh, nit ñi xamee fi ñuy fajoo fan la tey boo jógee bëgg xam dara dal la nga bëgg am fenn foo dem nan nga war a a def pour xam lii la dal fii laa war a dem pour fajoo ko c'est problème mhm. su ma xamee ne fii laa war a dem est-ce que foofu ma war a dem mhm. nekkul grève est-ce que nekkul congé est-ce que produit ma war a defal analyse nekkul rupture est-ce que rajo pas et cetera mhm. ma ne bon pourquoi pas ne pas créer benn application boo xam ne mooy permettre nit ki soxlawul ngay jóge sa kër bi ñu évaluer déplacement yi ngay def jóge sa kër hmm. ak bi ngay jot ci soin bi réellement yegg na au minimum huit à neuf déplacement bu dee suñu mbokk yi nga xam ne par exemple ñu ngi dëkk fu sori hmm. nga jóge Fuuta bëgg a ñëw Dantec bëgg a faju imaginel ñaata ngay paas ñëw soo amoon mbokk Ndakaaru de sax une casse problème alors que fa nga toog mun nga am toutes les informations qu'il faut ah euh, li nga def nii dafa am kon tey mënoon nga liggéey projet boo xam ne suñu état tamit dañ koy jël centraliser ko ba sa application mobile nga mën a passer commande ñu defala sa extrait de naissance ak yooyu. bon yooyu déggoon naa ne gouvernement mu ngi ci ne les gens étaient en train de euh, vraiment euh, projet am solo mais Ablaye Fall euh, waxtaan wax dëgg ci la mais xam lii lay jariñ jàngi lii lay jariñ da ngay dem jàngi ñëw tëgg loo xam ni lii maanaam luy jëmale nit ñi kanam la daal waaye njàng moo xam ni wax rek loolu moom moom amul solo sëñ Sall Valentin Faye sa message lan la. ah sama message d'abord damay rafetlu vraiment li mu def nii te gis nañ ci suñu bopp ci li jëm ci wàllu xele yi parce que wax nañ fi affaire état civil mu bokk ci suñu programme au niveau des enfants d'abord dañuy euh, euh, yëngu di xool it vraiment surtout ci xale yi nga xam ne seen ay néew ju doole lañu ñu ci bare xam nañ ne amuñu pièce d'état civil. donc message bi ñu am un programme par rapport à à à bon message bi vraiment comme euh, ni nga ko waxee rek. lii ma war a joxe rek mooy euh, wax ci lan la yëngu ñun dañoo nekk Thiès di liggéey ci wàllu protection de l'enfance ah, ñu am ci ñaari vole ñaari vole rek damay gàttal rek ñaari ah. volet benn bi dafa tënk xele yi nga xam ne ay néew ji doole lañu te ñu scolarisé ñu jàng école ñenn ñi nekk ce qu'on appelle communément les enfants de rue pour ne pas dire les talibés pour les enfants scolarisés nga xam ne seen dañuy def enquête au la ba xam ne ñii kat seen seen seen waajur yi dañoo néew doole ñun dañuy créer cadre boo xam ne bii day rehausser seen niveau de travail à l'école. bon léegi loolu mooy loolu ah. mooy yéen li ngeen def seen activité yi. bon léegi loolu wees nañ ko léegi yow ñun message dañu bëggoon parce que waxtu bi dafa ñu jàpp. waa message bi may lancé mooy damaa bëgg Sénégal yi yëpp ñun ñëpp ni ñu toll ñu xam ne ndaw mooy avenir Sénégal. donc ñun ñëpp ñun ñëpp ni ñu toll ñun ñëpp. ku ci nekk war nga béy sa waar ci li jëm ci xele parce que on ne peut pas bâtir une nation dans l'ignorance et dans l'indiscipline donc lu wér la peng réew moom mënu su koo tabax si ñàkk xam ak si ñàkk yar Ablaye Fall sa message lan la bon di lancer appel euh, tous les acteurs de la santé maanaam médecin yi le privé et le public parce que pour ñu defar lii il faut également que l'on mette en place ce qu'on appelle un dossier médical unique maanaam yow tey Tounkara waroon nga mun a foo mun a toll la dal nga mun ko xam am ko à portée de main que soit quelque chose qui électronique que ne boo demee ci beneen médecin soxla mu naan la analyse bi nga defoon daaw daaw jëg nangam nangam mm-hmm. il suffit juste qu'il interroge ton fichier électronique de médical mu xam analyse fu mu toll ak lu mu doon ak kee lu ñu defoon si yow nangam nangam mm-hmm. donc di lancer tamit appel au ministère de la santé boo xam ne dugal nañ fa euh, dañ leen war a dalal ñoom leen faydaal leen parce que réew moom yii moo koy jëmale kanam surtout nag loo xam ni dafa méngoog jamono euh, xam-xam bu wér moom la dem gëstu ñëw indi ko euh, tëggu ko teg. lii moom dañ ko war a kawel yëkkati ko dañuy def benn xaarandi léegi balaa ñuy laat suñu yeneen ñaari gan tey ci xel ak xol Nafissatou am bu baax a baax coow moom assemblée dina ko am tey te ñu kal bira moom moo ñuy taataan yooyu euh, sunu ñaareel jotaay euh, xel ak xol te ñu ngi si ànd ak imam Mohamed Dieng ak euh, Cheikh Sylla Talib Cheikh Sylla Talib moom mooy président association des jeunes poètes ñi nga xam ne daal ay way la ñuy def fii ci réew mi doon ay ndaw imaam di la nuyu la ziar. ñu ngi lay fay nuyu. Cheikh Sylla di la nuyu la ñu ngi lay fay nuyu sëriñ mhm. tey lan nga ñu indil la. alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din saadatal kiram ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fépp fu nekk di saxoo di seetaan télé bi di 2STV ñu ngi leen nuyu di la ziyaara di leen ndokkeel hit ci weeru mag wi nga xam ne nii mooy weeru gàmm imaam tey moo fi indi li ñu fi yëkkati indi ñu fi mooy ci domaine bi ñuy liggéey muy ci wàllum daara di jàng ak jàngale di yëngatu it ci wàllum ñaan. da am message boo xam ne da nga bëgg mu leer ci bopp ñëpp. waaw lu doon. message bi ma bëgg mu leer ci bopp jaamu yàlla yi mooy dama toog am kumal kuy inkaar wàllum takk téere ma ne ko nag loolu moom duhut maa la ciy tontee fii damay dem ba ci kanamu média bi tontu la ci indil la ci ay dalil. wa ala xaalin mu ne takk téere daf xaram ma ne ko xaraamut ndax mu ne ma lan moo tax booy ñaanal jaamu yàlla yi ngay leen ngay sàkku ñu lay fay ma ne ko dama ciy fayeeku ndax alquran ñëpp dëppoo nañ ci ne képp koo xam ne nii day jàngale day fayeeku kon kii ñaan dafa war a fayeeku ndax Seydina Ali karamallahu wajahahu do toll na ay jamono am lenn ci saxaaba yi am lu ko matt ñenn ñi nee nañ jiit la ñenn ñi nee nañ jaan la xilaafu ummati rahma wa ala kulli xaalin bi loolu amee bi mu ko moccee ba nga xam ne nii loolu tane na ma Seydina Muhammad boobu fekkewut ko waa ji si lan la ko eh, moccee ci fatihatul kitab si la ko Seydina Ali moccee kon li ñu bëgg a xamal jaamu yàlla yi te mu indi ñu fi mooy li leer li war a leer si jaamu yàlla yi mooy ne alquran buñ ko fi rombee yaakaar ne leneen lu dul alquran mën na jëriñ ñu ngi nax suñu bopp. léegi balaa ñu ñëw na Ali yàlla ko suñu boroom dool dolli leer. amiin tey euh, alquran mooy li jiitu. Mhm. est-ce que alquran am na fenn fu mu daganalee takk téere. am na fenn fu mu daganale takk téere ci lu wér ndax booy xool ci ibnu taymiya mu ngi nettali ba ne ñi nga xam ne nii dañoo xaraamal dagan dañoo xaraamal takk téere wala dañ koo daganal. lu mel ni mocc ak takk téere dañ ciy indi ay dalil yoo xam ne nii dañ cee def ay gës ba moo tax ñu am fitu di ci wax. léegi balaa ñuy dem si loolu imam mhm. man lu leer laa laaj de. Mhm. dama ni alxuraan lan la si te alxuraan moom bu koy wax rek ñu naan aaya nangam saar nangam lan la si alxuraan wax. ndax falamma alqaw qaala Muusa maa jitum bi sixru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yusli amal al mufsidin lépp loo xam ne nii jaamu yàlla bi mu ngi koy utiliser di ko takk. alquran mu ngi nett mu ngi nettali taarix boobu ci soratu yunus lépp loo xam ne nii jaamu yàlla bi mu ngi koy utiliser di ko takk mën na koo jëriñ waaye nag nag fexe ba sàmmanteeg sariya war na fexe ba sàmmanteeg it ak sunna loolu aaya bi nga ni lan la wax falamma alkaw mooy qaala Moussa maa jitum bi sixru yow yonent yàlla Moussa mii jëfandikoo lii ngir mu mën laa dimbale si njabarkat yi ma maa jitum bihi sixru inna ndax ndaxte yàlla mii sayubtiluhu mooy kii lan la ko foofu suñu borom wax mu jëfandikoo yonentu yàlla Musaa mu ngi ne ko na jëfandikoo alquran maadaama nag mu nekk comme ni ko yonent bi digalee ci falaqi ak naas yi wala mu nekk lenn ci ayatul quran waaye dem na ba wax ne alquran amul woon si jamono yonent yàlla Musaa wala déet xam nga jamono yonent loolu taarix moo ñu ko nettali ci alquran mais alxuraan du moom la yàlla wax yonent yàlla Moussa jëfandikoo ko parce que amul woon boobu. waa xam nga boobu ñu ngi doon jë ku nekk ak sa téere. mais euh, yonent yàlla Moussa suñu borom joxu ko ab yat. ne ko ko jëfandikoo euh, digganteem ak euh, Firawna ak yooyu. Hmm. du woon ab yat xam nga loolu ci wàllum beneen fànn la si njabar. waaye ñun li nga xam ne ni moom moo ñu hitteel te mu daanaka mu toogloo ñu fi. mooy li ma la wax léegi. léegi est-ce que bon loolu alxuraan boobu parce que ni nga wax moom si alxuraan moom leerul moom vraiment. Hmm. léegi beneen bi nag mooy nga baal ma tunkara leerul si man kay am naa si. sañ-sañ am nga si droit leerul si léegi beneen bi hmm. ce que yonent bi sallallahu alayhi hmm. moom mës na takk téere. yonent bi mës takk téere. est-ce que moom mës na bindal nit téere ne ko takk ko. mësut koo def waaye fekkee na ñu ko defee te waxut ci ndaxte ñu taxaw ci benn point dafa am ñoo xam ne nii dañ daan faral di utiliser lu mel ni ay yax ak ay yu yoo xam ne dafa xaram mhm. lu ci mel ni ay yax wala ay bopp ay petaaw yooyu daan ko takk nag di dugg moom si jumaa wala ñu daan dugg ak moom si jaamukaay yàlla yi nga xam ne fa la jaamu yàlla yi di jaamoo yàlla am ñenn ci saxaaba yi ñu yollee ko dem wax yonent bi ne lenn ci yéen am na ci ñoo xam ne ñu ngi takk ay téere nag dafa am wuute su fekkee ne da takk loo xam ne ci alquran yonent lu wax rek ci loolu laa nit ñëw ak yow dafa am loo xam ne nii su fekkee ne da nga koo jël bant bii nii yaakaar na yow bant bi mooy faj sa aajo suñ borom mën naa def bant bi faj sa ajo waaye nag bul gëm mukk ne bant bi moo faj sa aajo. waaye nag loolu la hadis bi bi waxagul loolu li muy ñëw maa ngi la koy wax ndaxte dama lay indi dale waaw waxal hadis bi balaa ngay dugg si si say explication. boobu kay ñooñu bant lañ daan takk ak ay yax lii bant la dama lay jox exemple rek. non hadis bi kay ngay yeggali balaa ngay wax. waaw mu ne. su fekkee ne yéen a ngi takk lenn ci ay tur muy turu yàlla wala mu nekk alquran ismullahi al azam maa ayatul quranil karim loolu dagan na yonent bi nee na dagan na ci làmmiñu Seydina Aliin karamallahu wajahahu mi ne ko anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadis ko solo hadis bi ki ko solo mooy rawaahul mu ne waaw kay an abi omar ibnu saib moo ko solo. waaw kan moo indi hadis bi laa la wax ban si eh, Bukhari la muslim. wala fa fi hadihi dalalatu zahira. waaw nee na mu ngi lay leeral ay dalil la yoo xam ne yu wér la. kan moo ma ni hadis boobu nga wax ku ko indi laa wax. hadis bi xam nga lenn dafay dañ ciy taxaw mooy la lenn ci hadis saxaaba yi ñoo ko jénnee lii nag Aliyun abi taalib karramallahu wajhahu moom moo ko jéem ban solookatu xadis laa wax est-ce que ndax la wala muslim wala ibnu Maaja wala. Euh, dégg nga bi moo ko solo. bi Bukhari yu la. si xadis muxtaarul xadis soo demee si muxtaarul xadis di nga fa fekk kii ne xadis bii may wax ak yow. mu ne zaadal muslimu fa inna taqi alayhi al Bukhari yu muslim bépp jullit boo xam ne nii tënku na ci wax ji nii rek. mën ngaa dem ci borom xam-xam yu bëri te danañ dëppook man ci lii may wax. te nee nga xadis bi Bukhari moo ko indi. Bukhari moo ko indi aywa xaaral léegi ñu xool euh, euh, kii Cheikh Sylla Taalib moom euh, lim ñu si wàllum way. dama koy doore di di ci nuyoo ma wax ne turwaa di seexu sant Sylla Touba la bàyyi ko juddoo fa gëm sangamba jël naa nuyoo bi ak siyaar bi jox ko Mamadou si mi yor jotaay bi peg ko. kuy diglu tey mbaata nga toog tey seetaan yaa ngi ci biir kon nan doxal ku mar naan ci multaxaak lu jëm ci way laa fas tey ngir wax ci leeral ci lu wér luñ dul mooy lu leen te jox ma ndàmbi xel yi ma duy ci ay ngëneel ñoŋal yëg-yëg yi def tekk tey bu génn lii débat bi ngir ay njariñ laa xalawal jataay bi. aywa tey yow lii la fi indi li nga bëgg leeral lan la. li ma bëgg leeral dafa am kuréel goo xam ne moo boole mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum way wolof way wolof danañ leeral luy ndax mu gën a leer ndax ñu nee waay fii ci Sénégal rek am na fa xel yi dem fu bëree bëree bëri te bokkul ak li nga xam ne moo ñu waaye wolof bi ñu ko waxee mooy la nga xamee ne mooy la suñu maam yi nekkoon daan koo def di wax seeni message ak di jàngale ak di yare ak di yeete te di ko jaare ci làkk wolof fi nga xamee ne benn réew wala benn dëkk mun a dem avancement jëm ci kanam te jaarewu ko ci aw làkkam. ah loolu moo ànd nañ si moom. kuréel gi nag kuréel la goo xam ne moo boolem boolem ñi yëngu ci wàllum way. te mm. xam ne kuréel gi mi ngi dox. ñaata ngeen. bëri nañ plus de 200 personnes. ñaari téeméeri nit. waaw aywa léegi message bi nga bëggoon mu leer si bopp ñëpp lan la. message bi ba leen ciy ñëw bëgg naa leer ay mbir tuuti. Hmm. ci comme kuréel gi doxit war nañoo tax ñu xam kuréel gi mooy lan dëgg-dëgg. ngir Sénégal yi nga xamee ne moo ñuy seetaan ndax bu ñu waxee ak kuréel rek maanaam am na ñoo xam ne tey la yees ci ñoom am na ñoo xam ne yàgg nañ koo dégg kuréel gi day yëngu ci ngir way comme ni ma ko waxee waaye di ñoŋal làkk bi ndax bu ma nee benn a dox te jaareewu ko ci aw làkkam yow nga jug di way di wax li ngay wax say message nga di ko jàllale ci wolof yaa ngi sàmmaale làkk wi ndax da nga ci dugal ay waat wolof mooy njëriñ loolu moom kenn du ko naataal ci la ñuy yare ci la ñuy yeete ci la ñuy jàngalee ci la ñuy éduquer ak lu nekk lañ bëgg a def rek des ko ci des koy mën a def léegi yéen yan activité ngeen di am yéen kuréel bëri na ay ñuy def bokk na ci yenn jotaay yoo xam ne dañ koy def di ko décentralisé moo xam ci biir dëkk ba fa xam ne siège fa siège nekk la muy Touba wala euh, ci bitti Touba lu mel ni dakaar gii. daanaka fan la fan la siège bi ci Touba. mi ngi Touba euh, ci ginnaaw jumaa ji wetu kër Sëñ Abdou Khadir kër Sëñ Jiili Gànnaar. aywa Sëñ Mor xam sa diine moom ci jiili la bokk. léegi est-ce que am na jongante boo leen def. si waaw am na benn concours boo xam ne dañ koy def chaque année depuis 2016 ren moo nekkoon troisième édition bi euh, def nañ ko. di ci dalal di ci dajale ay ndawi waykat. ñaata bi bu bu mujj bi ñaata nit a si bokk. 16 personnes ñoo ci bokk. loolu na. waaw ndax xam naa dina ñëw waaw tàmbali la rek. voilà tàmbali la dina ñëw mooy troisième édition bi tey it boo ko boo boo xamee nam demee da nga xam ne niiwaay ba du ca dara ndax buñ seize personnes yooyu buñ leen jëlee kenn ku nekk dañ lay jox thème thème boo xam ne day jariñ Sénégal yi. non neewaay bi xam nga lu tax mu doon si dara. Mhm. tey suñu làkk la ñun tey. Mhm. waroon nañ fexe ba buñ si def concours wala jongante. Mhm. mu doon maanaam lu yaatu. mais tey xam nga Sénégal daanaka boo jëlee téeméeri nit. juróom-ñeent fukk yeeg juróom yëpp dañuy làkk wolof. Mhm. ñu dem ba tey def euh, jongante bu woon na mu doon jongante français dina ëpp fuuf. fukki nit ak juróom benn jongante yi ko a ñàkk solo. aywa lu nga <laughs> soxla woo loolu. bëgg nañ ay sponsor ndax li ñuy def da ko soxla woo. ñu jot a jàll jot nañ ko am mais yi ci kanam it ndax bëgg nañ mu gën a weesu foofu. bëgg nañ li ñuy def nit ñi xam ko te xam ne man naa doxal Sénégal bu baax a baax. te a bokk na si aywa euh, Imam Mohamed Dieng. sa mhm. message sa dénkaane lan la. sama dénkaane damay toxal ab bayit jëlee ko ci mag mu moo xam ne ni ñu ngi koy ñu ngi tëbb ci moom mhm. mu nekk lenn ci magu diine ji waaye it muy mawlaay cheikh cheikh al islam xaaji ibrahim ibnu xaaji abdullahi Niass aywa lu mu wax dafa wax ne réew dox bi nga xam ne nii réew mi nga ko war a dox suñ borom mu ngi ko mooñ ci loxol ndaw ñi mhm. mu mel ni dafa am ku ko laaj ne ko ah loolu moom mooy lan mu ne waaye nag na nekk ndaw ñi nga xam ne ni dañoo nangoo ñoŋeel seeni activité pour wuuti xam-xam. est que. wuuti xam-xam ba nangu loolu am ay comme lii ñu daan dal dañoo amoon ay maam yoo xam ne ay ceddo lañ dañ daan toog bu lenn ci kilifa yi waxee dañ daan ko bindal ndax taarix daf koy nettali bi mu ne ko bindal lan la ko wax mu ne ko ya cheikh inna mustaqbala kulli watanin innama yatawaffaqu ala shababihi wa laysa ala kulli sababin nag ala sababil mustaxafina zawil axlaaqil ahmadiyati wal himami aliyati mu ne ko yow mbokk mi di laajte lii li ma wax dafa ma am solo dafa am solo waaye jamono jii de yaakaar naa ne borom xam-xam bu toog ngay yeey ko ci kàddu dina ne kii daf maa xeeb wala nanga imaam yow ni nga koy defee yëfu waaraate nga def loolu dafay jël temps bi ma danga ma laaj non ni ngay waxee laa dafay jël temps bi mm-hmm. Mm-hmm. léegi sa message dañu bëgg nga jeexalee ko loolu sama message mooy maa ngi dénkaane di ko dénk sama bopp la Mawlaay Seydi El Hadji Malick Sy waxoon Serigne Hadi Touré ne ko sama doom jaa ngi nii muy Abdoul Aziz Sy Dabakh xafisahullah waraahu yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla tas ñu si barkeem ak leeram mu ne ko maa ngi lay dénk kii pour mu jàng ñetti xam-xam lenn na am xam-xam na mën a liggéey na am yar. xam-xam liggéey yar. waaw nga baal ma ñëw ma daaneel léegi mu ne ko xam-xam ak yar waaye bu ñetti diisee nag na am xam-xam na mën a na am yar mu ne ko waaye bu ñaari diisee nag na am yar waaye jamono ji tunkara yar dafa tumuranke ci dëkk bi. ah yar de bu tumuranke <coughs> musiba am ndax euh, yare lépp euh, sànq yaa ngi ko doon wax. si di hmm. euh, Cheikh al Euh, Ibrahima euh, Cheikh al xaaj Ibrahima Niass doon wax mhm. euh, moom la sëñ Tuubaa doon wax it si mhm. tazaawadul sixaar na ndaw ñi mhm. ndaw ñaari yitte rek la war a am sàkku xam-xam ak njub waaw nga baal ma ci foofu ma ñëw ak yow xam nga foofu waaw kay baal ma rek ma dafa wax Seydil Hadji nga lan la ñaari ngi nii ci kaw suuf bu ñu doxee ba jàpp seen loxo dañ leen a war a dóor ba toog seen kaw. am mu mel ni am lu ko laaj ne ko waa ñaar ñooñu mooy ñan mu ne ko ki nga xam ne nii daa demoon jàngi àll boobu matagul mu ne ko fa ñukk dem toog di woote. ak ki nga xam ne nii demoon na jàngi ba xam bañ jëfandikoo lu muy jàng li muy def. waaye ñun nag ñu ngi sant yàlla ndax. kabura maqtan indallaahi an taqulu maa laa tafaaluun pere wu ñoo wax lenn loo xam ne nii buñ demee duñ ko jëfee. maam yow sa jaaro bi nga takk or la. non man déedéet du jo du or. lu tax jaaro bii sama soxna ma ko abal. ba may ñëw waaw lu tax mu abal loolu la nga ab soxna si jaaro. Ah, xanaa bëgg lu ko neex rek su ma ñëwee ma takk loo xam ne nii wóor na ma ne nii moo ko moom. mais mais moom euh, jaaro or lay takk moom soxna si. ah moom kay nu mu gën a rafetee rek. kon or la nii mu antum libaasun lahun la ah ak ay yaa gën xam or la. <laughs> est-ce que est-ce que góor imaam war na takk or. ah dégg naa ci benn shaa'ir nee nag or xaja ko xelo xaj rek moo yeyoo or. est-ce que est-ce que déedéet dama ni. Hmm. si l'islam si hmm. sunna. Hmm. est-ce que góor dina takk or. déedéet. lu tax nga takk or bon. yow lii tunkara lii doo ko xool ba xam ndax lii or la wala. ah lu tax sa soxna si jëndaloo ko jaaroo or kon. man du ma jëndal sa man danaa ko jox xaalis ne ko xoolal lu rafet. soxna si or la la jox soxna si or la la jox. mais dafa bëgg lu rafet ci man. ndaxte du ma ñëw toog ci Sénégal ñëpp ma seetaan mais comme daganul si yow mm. waroo ko takk danaa ko takk nag ngir bégal ko ndax alquran moo ne ñu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dee leen bégal seen li ñuy sol ak ci lépp comme li muy sol mënuñu koo fësal fii man danaa ko sol wane ko donte dafa araam si yow non non man moom xaraamu dafa xaraam loolu ñëpp dëppoo nañ ci waaw waaye lii tunkara lii de lii de or la <laughs> jëlal numéro nga woo ne ko lii or la wala nga jënd léegi laaj ci waxam <laughs> aywa <laughs> sunu imaam yi bon euh, lan ngay euh, jeexale ban message. waaw xam naa euh, tënkaayu waxtu wi daa tax lu bëri li ma indi woon du fi xaj waaye bëri na lool ndax. Euh, bëri na waaye ci kuréel gi bokk na ci ay yëngutoom rek mhm. dañuy li ñuy def concours yooyu noonu dañ koy def dajale ko benn téere lépp ñu bind ko ci wolof mu bind mu leer mu rafet téere bi mool ngeen kooku yooyu ndaal naa ko mi ngi ñi ma àndal ñi ma àndal sëñ Abdou Hakim ak Mbacke Diop ak euh, mhm. ak ñoom ci bitti dama ko fàtte ndaale ñu dajale ci yenn ci ay xasida yenn yi sax dem na ba ci loxol sëñ Muntaxa mi ngi mooy xalifa sëñ Tuubaa ndax dañ fay def siyaare chaque mm. Mm. Euh, ni ko noonu it bëgg naa def benn tuuti leer ndax sénégalais yi am lu ñuy wax rap mm. te buñ koy dégg day nuru ak poète wolof te bokkuñ way day tegu ci li ñuy wax al al ay wazn mhm. aw zaanu shi'ra mu nekk lu ñu màndaxe tegu ci ay ci wàllum arut mun nag charte waaw kay bu dee rab nag moom saari saari saari li ñu wax sàcc la gën a jege ngay teg tool koy rime moom lay moom lay moom lay doon kon mhm. loolu am na am na bi ci am na sa émission yi jàll am na ko invité woon mu indi fi wax ne depuis 72 ba léegi créé nañ lu mat plus de 75 fecc yàlla dogal ñun defoon nañ ci benn way benn taalif comme ñun dañuy éduqué ni ko ni ko ni ko sëñ bi waxee Eh, yar ak teggin ñun lii ñuy def da cee man lu bëree bëree bëri defoon nañ ci ngir yee ci nit ñi ak kasida waaw mhm. tuddoon nañ ci yu bëree bëri moom sax yi mu indi am na yu ñu ci tuddoon ku ñuy wax suñu Amadou Bass defoon na ci goo xam ne moom it lu jiitu woon loolu la mhm. xam naa gudd na gudd goo xam ne dama ko mën waaye dama ci lim lenn rek eh, dama waxoon ne waykat yi laa bëggoon ñu wax ma tey jii ci xeeti fecc yi xewal jamono jii lan moo di yuusaa caxagun guwaanaa mu lay cegin maanaa xoolal ma fecc mi ñu naan ko bombaas moom moo tilim te ñaaw te bon moo jar kaas lalal basang lu mu wund moo jaaxal kooba yi nag ma lii ndax suuful man raas de gekk laa ci xamoon buñ jaare di yéeg ca kaw tey jile nag mooy mooy waare ka génn raay joxoñ damoo dib saay-saay yéen lii nga yor loo bëgg a wax yaa naax saay la jiitu woon ca baat bi le muy mboroxe lekk gu neex te léegi tey mooy toroxe feccum ngalañ lu muy nuróol wax leen ma jàpp leen ko ni kuy woyal jëli leen ma léeg ma dégg nit di wax naa réew mi daa moom doxatul daa boole ko li mbir mi mbir maa di fecc yiñ xewal yu ñaaw yi cay bolokaas day bolokee suñ xel yi ak yeneen gudd gën naa gudd bu ko tàmbalee bolokaas day bolokee suñ xel eh, eh, naa message ndax jëlaleegu ma sama message mm. mooy di gën a soñ sénégalais yi bu baax a baax ñu gën a fonkaat suñu làkk wolof ñoŋal ko ndax ñi ngi ñun yow boo defoon erreur ci français dañ koy jël def ko ci titre ko ci youtube bi yëpp tu nga def na benn erreur arabe ni ko noonu mais bu dee wolof a kenn du ko faale yéen journalistes yi surtout da ngeen léegi nit wax ba càgg mu ne xaw ma niñ koy waxee daal di ko ne wax ko ci en français te du ko xam bu fekkee xamu ko defee ko noonu du ko xam nañ fonk suñu làkk wi jël ko di ko bind di ko ñoŋal ñi ciy yëngu ñu ne dimbali beneen message bi di yow yaa ko moom pour yow la mm. euh, dama koy may mooy émission bi dafa am solo mm-hmm. ay nit yi nit dañ koy seetaan bindoon naa ci benn jàngat ci en wolof indaale naa ko mu ngi ci mm-hmm. nañ dinaa ko envoyé mm-hmm. comme ay julli lañ te dañ addiinu an nasiha euh, ñu lay nekk koo xam ne dañ laa estimé kon c'est normal bu ñu gisee loo xam ne war nañ ko mën a def pour laabiré ñu jox la ko moo émission bi gis nañ ne am na solo ñëpp a koy bàyyi xel di ko di ko di ko siifur muy mag ñi muy ndaw ñi kum raw sax en direct da nga koy demaat dabu ji ko YouTube. gis naa ne comme ni muy déroulé man jàppoon naa ne war naa gën a mën a am évolution bu baax a baax ci comme yenn invité yi nga xam ne ñun buñ leen bu ñu leen gisee ñu mën cee jariñu ci wàllum mantal ci wàllum suñuy jikko mais yenn léeg-léeg ñu am ci invité ñoo invité ñoo xam ne wax dëgg yàlla duñ sawar émission bi aussi it façon des paroles yi ngay utiliser ak ñoom it gis nañ ne léeg-léeg. bon loolu loolu loolu si la. loolu njuumte la si yow. voilà. Hmm? nu mu nekkee njuumte si man. ndax ñooñu ngay wax. Mhm. nga leen di xeeb noonu. pas xeeb pas xeeb. non boo nee diw sàngam waruñu koo invité. non non waxuma diw sàngam de aussi. boo nee am na invité yoo xam ne waruñoo ñëw. c'est normal waaw. loolu mooy ñooñu xeeb nga leen. noonu xam nga lu tax. léegi. xeebuma leen xam nga lu tax koo invité yow. war naa nekk ko xam ne bu ñu ko digloo rek jariñ ci mais bu la leeree ne kii da leeral duñ ci jariñu it wax dëgg yàlla ñun sawruñ di suivre comme nañ koy suivre di ci joxe suñu temps di ci joxe suñu xaalis ndax connexion bi ñu koy seetaan aussi xaalis la ko invité yàlla jàpp nañ ne waruñ léegi koo jàpp ne mhm. waruñu ko invité xeeb nga ko non non pas xeeb léegi ndax yow euh, leer na yow yaa ngi wax nit dana dikk loo xam ne xam nga kon yow yow demoo pour nangu mais saa yoo jàppee non boo déggee ne xeeb la xeeb lay doon mais boo ko déggee ni ma ko waxee du nekk xeeb. dama ni ni nga ko waxee. ndax euh, ndax ñun. Ah, yow kenn yow rek yaay doo déglu. <laughs> non il faut bi ngay wax dama laa déglu. waaw pour nga mën a comprendre wax ne ni jublu nga ci xeeb bi leer ci sénégalais yi. du li man laay wax xam sa jublu sa yéene sa biir xol la man mm-hmm. xaw ma ko. Mm-hmm. mais saa yoo yëkkatee sa kàddu. Mm-hmm. ne diw sàngam warta ñëw kooku xeeb nga ko. léegi yaa ngi dégg fii nag fii nag. Eh, mais daa am fee yoo xam ne dañ koy xeeb. xam nga ndax kii jug ngi nga xam ne day wax day wax par exemple ngir taasu wala loo xam ne lii kii li ñuy yëngu da lay leeral yàq éducation ndaw ñi mhm. kooku dañ ko war a xeeb ak la muy war la muy def dañ koy xeeb mais duñ xeeb ji mais la muy def dees koo war a xeeb mais pas jëmm ji léegi mhm. nga xeeb ko xeebaale nga jëmmam déedéet bon léegi euh, xam nga léegi <laughs> no de imaam yow sa imaam sa kàddu jeex na imaam imaam mais li nga wax xoolal li nga wax li nga wax moom mhm. euh, xam xam nga yow tele yow mus nga liggéey si télé non mus nga jàng télé non non kon yow liggéeyu télé. waaw waroo si wax. bien sûr. xam nga lu tax waroo si wax. Ah. parce que amuloo xam-xam bi. mais ñàkk xam-xam teewul li nekk en réalité ñu mën ko wax. waaw doo déglu tamit de. <laughs> yéen yéen yéen borom xam-xam yi doo leen nangu ku leen wax de. <laughs> Euh, yow gis nga gis nga euh, critique ku ko war a def. ñun sénégalais dañoo rëy ñun moo tax kenn ku nekk su dara jógee rek. moom mu sikkal kii man euh, condamné kii xeeb kële parce que ñun dañu rëy. kon yow amuñ droit ñun di seetaan sa émission gis ci lu ñu naqari ñu wax la ko. non bu fekkee da ah, nga liggéeyal sa xakay non boo gisee ne dañoo dama lay. critiqué ba pare ba pare il la. non xam nga émission la itam dañuy waxtaan pour lu jariñ ñëpp. mais mais xanaa dinaa pare li may wax kay. bien sûr rek xam nga bi ngay wax dama laa déglu léegi euh, ñun Sénégal. Mhm. sunu léeg ñun dañuy xeebante sunu biir xam nga ñun déjà sunu cosaan ak ñun dañuy xeebante. Mm-hmm. géer ñi dañuy xeeb euh, dañuy xeeb ñeeñooy ñeeñooy mm-hmm. xeeb yi géer yeeg yooyu xam nga ñun dañuy xeebante léegi xeebante boobu daf ñu topp si lépp moo tax Sénégal dafa gaaw ne lu tax kii di ñëw sa émission. <laughs> te xoolal képp kuy doomi réew mi rek. Mm-hmm. yow da nga am solo boo xam ne yow mii Cheikh la mën nga koo bañ a gis. waaye keneen gis ko euh, sëñ Abdou Karim Mbacke euh, yàlla na suñu borom dolli leer. Mm-hmm. dañu toog mu wax ma wax bu am solo mu ne ma léeg nit ñi dañuy dangay indi kenn nit ñi di am luñ si wax. mu ne ma waaye kooku jariñ na keneen ku dul kooku ndaxte indi naa fi nit xulans bi rek falaxi munu ko. Mm-hmm. ñu bëri jëlee nañ si ne ñoom delloo si seen xel ne que ñoom ñoom it mënuñu xulans bi falaxi ñu doog dem jàngi ko. xam nga boo bàyyi woon dinaa la wax sa njariñu émission dinaa la wax sa njariñu émission nga xam ne eh, Sénégal. delloo njukkal suñu ñaari émission yi eh, tëyal ñu indi suñu ñaari gan tey si jotaay bi xel ak jëkkëram xeeb xel bi lool lool lool ba du ko wax daraam moom daal xelu ndaw si doyu ko léegi nag mu ni soxna si di ko napp yow léegi damay waxtaan nga may déglu. mun ko du loolu sax de noppa amul couvert rek yow sax léegi yow boo doon joxee solution bi loo xalaat mun ko boo demee nga ni sa patron na tracé plan bi fi mu bëgg nga tabax ko na ko rëdd bu ko rëddee rek nga tabax ko xam ngeen ne loolu coowee bari rek waaye du am mu ngi noonu foofu la lépp doxee bakkan bu ko njëkk foon bi ajana jigéen ak xelam góor delloo njukkal waa régie euh, Roxay Daw Mbodj moo nekk tey ci euh, réalisation bi sunu ñawkat Pape Sy fii ci HLM euh, si ngir création ziar ko sunu jotaay mujj tey ñu ngi si ànd ak Baba Ardo Baba Ardo artiste comédien la ensemble Ibrahima si Ibrahima Sy moom Ibrahima Sidibé Ibrahima Sidibé businessman la mm-hmm. Ibrahima ziar waaw delloo nañ la ziar Baba ziar ziar Tunkara Baba si loo yëngu man je suis un artiste comédien acteur de développement en même temps animateur xeetu comédie ngay def yow man ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di nuyu fi nga xamante ni fa laa jógee muy Kër Madiabel di nuyu waa Saalum di nuyu waa Nioro di la nuyu Tunkara ak euh, ñi nga xamante ni ñoo safoo di seetaan la 2STV yi ñëpp. waaw léegi ñu ngi lay déglu si sa comédie boobu lañ wax ñu ngi si waaw en fait dafa amoon loo xamante ni moo ma taxoon a jóg Tunkara pour ñu waxtaan ci parce que tey bu ñu gisee télé yi nekk Sénégal yëpp.

tey loolu noonu dafa doon. loo artiste am na ay émission am na émission. Sa Ndiogou am na émission. non non non euh... loolu ay actualité la yoo xamante ni ñoom moom la ñu teg comme Kouthia li def ak yee li ñu def mais loolu wane wuñ ci euh, cosaan ak aada li nga xamante ni moom la ñu am tey bu ñu demee ci ay yenn dëkk yi. tey munoo leen a citer pour autant nga citer seen culture mais bu ñu ñëwee tey Sénégal plus particulièrement dañoo jël euh, li nga xamante ni mooy culture daal di koy sabootal li nga xamante ni moo koy saboté non nga xamante ni ñoo war a yi nga xamante dañoo war a accompagner les artistes comédiens télé yi nga xamante ni dañoo war a dem ci festival yi télé yi nga xamante dañoo waroon jël ñun suñuy projet parce que tey boo xoolee am na ay novela yoo xamante day am ci télé yi. ñoom li ñuy jël di ko fay ci nobela yooyu noonu ndax ñu ngi koy def ci ci festival yi nga xamante ni mais mais ñoom amuñu obligation def loolu non non non mais du obligation promotion la dafa na tunkara mais xam nga tamit ku nekk ku nekk waaru la neex ngay bay non mais xaaral booy bay waar dangay bay waar boo xamante ne ña nga nekkal ca waa dëkk ba ñoom dañ ciy gis seen bopp. mais du yow yaay wax waa tele bi bay leen waar. non non waxuma waa télé bi ñoom ñu bay seen waar. léegi yow yow par exemple. Ba Ardo ku nekk ah. danga war a njëkk bay sa waar. bay sa weewu tànk yow en tant que artiste comédien. yow lan nga produire. Tunkara loolu boo ma ci laajee man dinaa ci sawar lool pour tontu ci. parce que man damay faral di wax ne artiste comédien yi ndaxam ñun dañuy dem ci non loolu laa la bëgg expliquer boo toogee rek ma expliquer la ko Tunkara lan tey am na yenn télé yoo xamante ni jaar nañ fa man je suis un animateur maa ngi liggéey TVS bu Saloum foofu laa nekk animateur un deuxièmement mooy am na ay euh, série yoo xamante ni comédie yu loon daw ci ay tele du ma cité yi man maa ko scénarisé échange comme ban comme ban mooy kooru locataire yi maa ko def kooru jantalmaa yi man maa ko def ak Banlieusard production man ak ñoom ñoo ko jot ban télé RDV moom la jaar man maa ko scénarisé te avant avant RDV sax ñëw nañ fii nii yow da ngay bind scénario non dafa nànk man binduma scénario je suis un acteur artiste laa ah, lan mooy maa ko scénarisé bon no non c'est bokk ay équipe la équipe boo xamante dañ koy liggéey. yaa ko scénarisé mooy yaa bind scénario. non non mais yow acteur laa ci. waaw lu tax nga ni yaa ko scénarisé. non boo joué naa si kay. Ah, a leer. baba non ah, non dama bëgg leeral. dama ne joué naa comme étant acteur. en même temps bokk ci équipe bu. non c'est-à-dire man samay xel maanaam li may xalaat man. en même temps da bokkoon si équipe bu. équipe bi nga xamante ne mooy équipe de production bi. bon mais yow. yow yow est-ce que wàllum comédie da nga koo jàng kan wàllum tu comédie bien sûr que foo ko jàngee. moom laa lay expliqué man dama nekkoon Saalum dëkk bu ñuy wax Kër Madiabel ma nekk fa di def théâtre bi ma defee théâtre am suñu papa yoo xamante ni nekkoon nañ fa bi fa nekkee ma posé leen question maanaam ma wax leen pourquoi art ak culture bi nga xamante ni moo nekk Kër Madiabel moom avancé wul. ma posé leen ma ma recevoir ñoom seen i seen i seen seen i kàddu bi ñu jugee foofu noonu ma def suma analyse en 2013 ma doon champion départemental en théâtre en même temps xaar non dama lay expliquer non de moom laa la bëgg. fan nga jàngee. moom laa bëgg ñëw dama lay wan dama lay wax ne foofu laa jaar ba permettre ma man ma dem jàngi théâtre parce que du ma tëb non moom laa lay expliquer boo ma dégloo rek ma waxal la. bi ma ñëwee man en 2013 ma ma jël champion départemental à théâtre doon acte euh, noonu doon meilleur artiste départemental ñu dem au champion régional de la jeunesse ñu doon vice championne. bi ñu jógee foofu noonu ma ne nag jot na tey en 2013 ma dem gën a euh, euh, gëstuwaat li nga xamante ni mooy théâtre ma jugee ma jugee dafa nànk rek ma jugee dakaar ma jugee Saloum ñëw Dakar fii di fi jàng théâtre retourné naa nag fan nga jàngee ma nekk sargal art bi muy composé 36 membres ak Arcos Pikine ñu ngi may déglu foofu nga jàngee jàngee naa fi théâtre sargal art ak Arcos Pikine ak Sangomar xaara pareegu ma ak Sangomar jàngee naa xaar léegi ñu ñëw nga wax. ñëw naa it Blaise aussi it am lu ma fa jàng. très bien léegi euh, Ibrahima Sidibé yow businessman nga. waaw yan xeetu business ngay def. bon xeetu business yi may def bari na ambulant jaar naa ci ambulant. fu mu toll nii ban business ngay def. boof daan naa jënd di yóbbu import export. foo foo doon yóbbu. fu ne def naa Mauritanie Maroc tout ça ak yeneen ak yeneen Gambie ak yeneen ak yeneen. foo dëkk. yëmbal laa dëkk. yëmbal fan sud bon yëmbal nord laa dëkk. yëmbal nord waaw bi ñoo bokk koñ quoi. aywa euh, di ko ziar Mbaye Gueye. waaw ak euh, yow. Mhm. tey ban lan ban dénkaane nga am boo fi indi. waa message bi mooy. Mhm. mooy euh, future génération bi nga xam ne tey dañu nekk ci fayit maanaam nekk ci sanko te ñu am ci part de responsabilité boo xam ne ñun dañ ko war a fayat pour loolu. même bu arrêté wul sax à cent pour cent mais mu wàññeeku à 50 pour cent parce que ñun jot nañ ko vécu xam nañu ko dund nañ ko nekk nañu sur le terrain ça veut dire maanaam euh, xam nañ ci lu bari ci m'as bien saisi kon Mbaye Gueye loolu muy wootee naan geste bu nice boobu noonu man maa ngi koy lancé waat message di ko encouragé di ko xamal ne ko geste boobu même yàlla sax geste bu nice la wootee. waaw léegi sa message lan la. waaw message bi mooy. ça veut dire maanaam euh, moom loolu muy woote noonu ci geste boobu noonu. non non bàyyil Mbaye Guèye fële. yow sa yow sa bopp la ñu wax. bàyyil lan la. waaw ragal. non non ragaluma bàyyil Mbaye. waaw yow sa message lan la. waaw message bi mooy maanaam. pour ñu euh, dimbali xale yi nga xam ne tey ñoo nekk ci mbedd bi di taxawaalu. li nga takk sa sa put mi lu mu doon. lii maanaam jalambaan la kurus la. jalambaan bi pour lan non man Baye Fall laa ay ma bàyyi faal hmm. waaw. ba foo foo askanoo si Baye Fall bi. waaw man taalibe Mama Samba Amdi Moustapha laa borom Ngàcce Fall ngir ngi néew. yow doo julli doo woor. si dinaa julli dinaa woor. Baye nga mais da ngay julli da ngay woor waaw damay julli damay woor. Hmm. yoon ngay julli si bés bi. non mais prières yi ñaata la. am ñaata la. non yow da nga laaj ma delluwaat question yi. yow jullit nga comme man n'est-ce kenn du tontu question par une autre question. da tontu laaj parce que am na ñoo xam ne. ñaar la juróomi waxtu yi moom maa ngi koy respecté quoi. Hmm. que waaw les cinq prière yi nga xam ne moom la yàlla digle maa ngi koy def. mais ma fa woon Baye Fall lu julli du woon. loolu moom ça n'a rien à voir ak i Baye Fall am. yow Baye Fall buy julli nga buy. waaw Baye Fall dafa nekk maanaam benn slogan boo. xam ne te jàng alxuraan tamit. waaw am na lu ma ci jot a jàng nag am na lu ma ci jot a xam. jàngoo ban saar yow. man bari na saar yi ma mokkal bari na. Hmm. ma cité par exemple exemple maanaam ci Iqra maanaam maanaam fa laay njëkk a iqra mun nga ko tari waaw iqra mun naa ko tari bismi rabbika allazi allazi xalaq linsaana min xalaqin iqra wa rabbuka laa yakramul allazi alama bil xalami alama linsaana maalam yaalam mun naa ci sori sax parce que ba ba définir na ko tamit waaw alama linsaana maalam yaalam waaw ça veut dire maanaam lu si tegu alama linsaana maalam yaalam waaw mais jarul sax maanaam ñu ci ak parce que tamit ça prend du temps non waaw may naa la temps boobu nag waxal rek waaw ok ça veut dire maanaam iqra boobu illa alama linsaana maalam yaalam lu si tegu waaw mais xam nga Tunkara il faut nga bàyyi ma man it maanaam ma xalaat wax waa parce que askan bi moo ñuy déglu quoi à travers la ñuy wax ñun. wax Iqra. waaw xam nga wax ko ba mu jeex. waaw loolu dafa am solo parce que am na ñu lay déglu ñoo xam dinañ jàng. dinañ di leen fàttali dina doon nafar pour ñoom. foofu laay waxee man. très bien. te yow Iqra. Hmm. wax nga ba allama insaan maalam yaalam lan moo si tagu pour mu jeex loolu simple na Ibrahima. voilà d' accord. allama insaan maalam yaalam. waaw maanaam xam nga maanaam boo gisee ma wax la la ne la boobu. ça veut dire maanaam dama fa bëgg a yegsi rek pour nga xam fu ma bëgg a waxee quoi ça njëkk maanaam wàcc na mooy li njëkk a wàcc ci Coran pour jàngale la jàng moo ko tax a jóg. léegi yow saar bi doo ko wax ba mu jeex. non non mënu ma ko wax ba mu jeex. aywa euh, wax ba mu jeex. Hmm? tabat yaram mu jeex. naa ko wax ba mu jeex waxal. waa mais xam nga tabat yaram tamit di ko wax tamit bon. abi laxabit wata ba maama ax naa anu yooyu yëpp tamit mën naa ko wax. parce tamit bon jàng jàng rek la quoi. waxal ci tamit loolu. Euh, du wax ji parce que wax ji mooy il faut nga bàyyi ma man. ñaata laa lay jox pour nga wax ko. ma wax quoi. waxal waxal tabat. non non xaalis bi amul solo li am solo mooy maanaam il faut nga bàyyi ma nit maanaam ma exprimer wu wax. waaw après boo waxee loolu après nga waxal ma tabat. voilà très bien d'accord naa léegi euh, jox ñu message bi après ñëw jeexal ak yow Baba Ardo waxtu bi jàpp nañu luy message. waaw sama message mooy lan euh, mooy ñi nga xamante ni ñu ñoo dëkk ci village yi wala ci ville yi nga xamante ni ñoo gën a sori nañ leen ñu may formation ñi nga xamante ni ñoo nekk Dakar parce que théâtre bi nekkul dakaar te ñun ñu ngi sonn te aussi activité yu ñuy def au niveau régional damay wax au niveau régional amul kenn koo xamante ni wala néew na artiste comédien di ko def te aussi fekk ñu bàyyi tàllal loxo bi fekk ñu ngi ñaan rek ñun dañuy noot. am na loo xam war nañ leen ko ñaanal nag yéen waa Kër Madiabel. waaw ndox mu baax. ñoo suñ ndox baax na. lu tax seen bëñ yàqu. non non suñu bëñ man dëkkuma fu juddoo ma fa mais dama fa jàngee. yow foo juddoo man Kaolack laa juddoo. moo tax sa bëñ baax waaw ma yore 32 ans yi. tout à mu ngi tout à nord kay. aywa euh, yow looy jeexalee. waaw man li may jeexalee mooy. ça veut dire maanaam euh, sunu rakk yi nekk ci mbedd bi sunu jarbaat yi sunu frères yi bëgg a sànku ci anam boo xam ne vraiment. waroon na mën a loolu waroon na mën a jeex. yow mus nga dem prison. waaw mus naa dem prison. ñaata yoon benn yoon. ñaata temps nga fa def. deux ans loo defoon. cannabis lañ ma jàppee woon. nga doon tux yàmba. non daaw ma ko ko jaay. jaay léegi na. bàyyi nga tux bi tamit. bàyyi bàyyi naa tux yàgg na. bàyyi nga tux bàyyi nga jaay gains doo ko def. non du ko daa am lu a may balaa ñuy dem wala mu bàyyi ko mu wax ko xaaral waxal tabat yada. waaw mais Tounkara il faut nga may ma am na lu ma war a wax lu bari quoi loo xam ne maanaam waaw léegi waxal tabatiyaadaa après nga bi loolu maanaam garaawul quoi waaw mën nga ma ci jégal sax loolu xam nga waaw mënuma ko quoi garaawul bon yow lan nga bëggoon wax Babaardo euh, waaw parce que dama damaa bëggoon a am lu ndaw rek benn prestation parce que da koy laaj artiste yi prestation waaw kay loolu laa bëggoon nga yu dugal ma ci ma def prestation mu damay taxawal damay toog lu la gënal man taxaw taxawal alma Euh, euh, nu mu tuddati papi cadrel ma jël ma jël ah ma ahlan bikum dal leen ak jàmm affaire yi jaxat jaxat nga jeex na affaire yi dëgg-dëggal nga laa la bëgg a wax ay yow seetal élection présidentielle yi 2019 la de candidat yi ku nekk naan man maa mën maa jël li nga xamante moo réew mooy réew mi ay yow seetal dama ne nag loolu noonu nga xamante ni moom lañ bëgg a def affaire yi jaxat la wala affaire dëgg-dëggal la politiciens yi ñenn yor ji koy xaj di baj baj suñu réew mi lëj innocent ñu économique suuxee ñu salfaañoo suñu àq ak suñu yelleef doye cosaan waaye nag waa Sénégal gi yëpp am nañ benn question boo xamante ñu koy laaj Tunkara gannaaw bañ ko tëyee ci élection député yi daal di koy dóor dóor yu métti waa Sénégal ñu koy laaj ba xam ndax Tunkara day dem ci élection présidentielle yi waaw wala déet Tunkara la question c'est avec vous merci beaucoup <laughs> Baba Ardo eh, Roxoy Mbodj eh, Ibrahima yow loo jeexale waaw man li may jeexalee mooy euh, comme li geste bi wootee geste bu nice boobu noonu. parce que moom nee na moom dafa bëgg doon président euh, euh, ministre des enfants de la rue mais pourquoi mënuñu ko jàppale ci loolu muy woote slogan boobu noonu. pourtant c'est ah important. bon leer na naa sa message donc mooy jàppale mbay Gueye si waaw ci loolu muy woote delloo njukkal sunu mais tey da nga def lu am solo. Mm. mooy xam nga ñun sénégalais. Mm. du ñu nangu ne mënuñu. Mm. yow wax nañ la tabat yada nga nangu ne munuloo ko xam nga loolu maanaam wàcce suufeel sa bopp boobu suñu borom da koo da koo da koo bëgg da ko da koo da koo kaweel ñun sénégalais nag léegi dañuy rëy de mhm. dañuy laaj xamuñu mhm. ñuy jéem a xuus ba faxasalu mhm. li nga def nii ñu ngi la si euh, delloo njukkal bu baax delloo njukkal suñu ay technicien tey autour de Rakhoure Daba Mbodj si euh, euh, réalisation bi tey suñu ñaawkat muy Pape Pape Sy Pape Sy njiit création fii si HLM 6 sunu ay euh, téléspectateur nag amuñu seen fay waa Touba yi ñoom soxna ma Sall ak sama waa kër yëpp foofu yëpp di leen ziar. di leen ñaanal suñu borom jàmm xéewal ndimbal ak yërmande fàtt nag loolu di koy joxe mooy xam-xam di ko jëfee ak jikko ju baax di daje ñëpp ëllëg bu soobee yàlla salaam.